di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci bërëb bu màgg bi di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko mu defal ñu it tey siir te defal leen ko loolu yomb na ko lool mën na ko yomb na ko lool yàlla na ko defal bi barakati seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu dellu ci bayaan bi nga xam ni moom lañuy faral di def njëkk imaam di si nu am mbégte lool ci dajawaat ak bokk yi ci bërëb bi amoon it benn waxtaan way dooroon nañ ko fi mu des nu bëggoon ci kàttanu sunu borom subhanahu wa taala ak tawfiqam ñu dellusi taxawaat ci daldi koy jàngataat laabire ko sunu bopp laabire ko it bokk yépp ndax waxi borom bi la subhanahu wa te waxi borom bi moom waxtu wu ne jaam yi war cee taxawaat delluwaat ci jàngaat ko nafaraat ko ndax nu man di ci jariñu ni mu ko bëggeta santaane ko ne ñëwoon nañ ci benn aaya alquran mu mujj ci suratul fatxi aaya bi di wax muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana siimaahum fi wujuhihim min athari sujud dalika masaluhum fi ltawra wa masaluhum fi linjili ka zar ka zarin axraja chat'ahu fa azara fastaxlaza fastawa ala suuqi yujibu zurraa liyaxiida bihim alkuffaar waada allahu alladina amanu wa amilu salihati minhum magfiratan wa ajran azima taxawoon nañ ci aaya boobu jaar ci prix mu gaaw tey nu bëggoon dellusiwaat ci jàngat ko wi nga xam ni sax day weeru sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy shaabaan baraxlu te ñu jàng ci xadis yu bari ni suñu borom subhanahu wa taala wala ci xadis yu bari ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana màggal weer wi lool fonk ko lool di wax ni dafa nekk ci diggante rajab ak ramadan bokk yi dañ koy sàggane ba tax mu doon ci farlu weer waa ngi jeex noo ngi ciy ndokkeel mbokk noo ngi ciy ndokkeel mbokk yëpp di ñaan yàlla nu fekke wat ko déwén ramadaan bi nu jub si ñu egg ca woor ko borom bi subhanahu nangul nu ko aaya bi nu yor mi muhammadun rasulullah danga ciy seetlu ay mbir yu takk lool yu bari lool bi ci njëkk rekk mooy sunu borom subhanahu wa taala da cee tudd turu saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sàllalu ko muhammadun rasulullah muhammad ñeenti yoon la ñëw ci alquranul karim yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala da ko sàllalu tudd ko muhammad saraxatan mu leer nañ nga gis ni ñëw na ci alquran ñeenti yoon benn ngi ci suratu ali imran benn ngi ci suratul ahzab benn ngi ci suratul qital benn ngi ci suratul fat ñeenti yoon yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mi ngi sallalu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa tudd ko muhammad boo seetloo da gis ni àndul ak li ñuy tuddee yaa un nida ci wolof ñun bu nu bëggee woote dañu naan e koo bëgg woo da nga ko naan a e. jaar ci aw turam e Moustapha e bu dee ci arab da ngay jëfandikoo araf yaa yaa Moustapha wala yaa Muhammad noonu la ñuy wootee ci arab dañuy seetlu nag ci alquran yoon yi sunu boroom tudd Muhammad yépp amu ci benn bu ci ànd ak baatub yaa yaa Muhammad déedéet ñëwul ci alquran moo ne danga koy gis nag ci yeneen yonentam yi ak rusulam yi mu di leen ko def mu woowee leen ko yaa aadam uskun anta wa zawjukal janna ci alquran yaa nuux ihbit bi salaam yaa ibrahim qad saddaqta ru'ya yaa zakariya inna nubashiruka bi gulaam yaa muusa inni ana allahu rabbul alamin yaa yaxya xusil kitaaba bi quwwa yaa isa bna maryam a anta xulta linnaasi ittaxizuni ana wa ummi ilaahayni min dunillah juróom-ñetti yonent juróom-ñetti yonent yoo xam ne suñ boroom subhaanahu wa taala woo leen ci seen tur yaa teg ci yonent ba te defu ko ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñeenti ñi sax ñeenti yonent yi suñ boroom def loolu ci ulul azmi yi lañ bokk ci yonent yi gën a dogu ba sunu borom tudde leen ñeenti ci lañ bokk ñeenti ci des ci rusul yi ak yonent yi lañ bokk nga seetlu foofu ni te Muhammad mi ngi bokk ci ñoom juróomeel leen waaye moom turam di ku ca wa min ka wa min nuuxin wa ibrahima wa isa euh, wa moussa wa isa ibn mariam ñu ni juróom ñooñu ñooy ulul azmi ñeenti ñi ñëpp yaa ak seen tur ñëw na waaye Muhammad yaa Muhammad dikkul borom xam-xam yi taxaw foofu jàngat ko wax ni loolu suñ borom subhanahu wa taala da cee jublu takrim tashrif ak tanwih ala azamati day wone warma ak teraanga ju Muhammad sallallahu alayhi wa am ba tax sunu boroom sàllaluwu ko woo ko ni mu def ak yonent yi ci des nga seetlu ni kon noonu mu ko ñàkk a sàllaloo woo ko loolu la tere ku ko woo di ko sàllalu yaa Muhammad saxaaba yi biñ fi nekk di dund ak moom dañ leen ko tere alxuraan da koo tere ku sàllalu muhammad sallallahu alayhi wa ab woote yaa muhammad laa tajaalu duaa ar rasuli baynakum ka duaa i baadikum baadan ni ngeen di wootantee ci seen biir yéenu neen bu leen ko woowee rasulullahi yaa muhammad bu ko kenn wax loolu taxoon na saxaaba yi yëpp dégg ndigal di ko woowee yaa rasulallah ak yaa nabiyallah diirub li ñuy dund ak moom kenn sàllaluwu ko ci ndax sunu borom tere na leen ko ci aaya bi la tajaalu duaa rasuli baynakum aaya bi tamit xam nga tere na kon ku ci sàllalu muhammad sallallahu alayhi am na nag ñu ko déggewaat beneen déggiin mooy ci alxuraan fukki yoon ak ñett yaa ayuha nabi kon bari na lool sunu boroom di ci jaar di ci woo Muhammad su ko bëggee woo walla mu jëfandikoo risaala def gim ko soloo gim ko soloo def ko ab yonente ba noppi yónni ko jëfandikoo na ko ñaari yoon ci alxuraan woowee ko ko yaa ayuha rasul laa yu alladina yusaaricuuna fi lkufr yaa ayuha rasul balligh maa unzila ilayk ñaari yoon mu woowe ko yaa ayuha rasul walla léeg-léeg su ko bëggee woo dana jëfandikoo yeneen melokaan yoo xam ne moom moo ko ko may di ko ci dëfal ak a wéttali ak di ko ci ñeewante ngir ab diggante bu mu toll woon lu mel ni yaa ayyuhal muzammil yow aji sàngu ji xumil layla illa xalil jógal guddi gi ak yaa ayyuhal mudaththir yow aji muuru ji kum fa anzir jógal nga wax ak nit ñi jógal nga waar nit ñi jógal nga xopp nit ñi loolu it gis nañu mu jëfandikoo ko su ko bëggee woo amma su fekkee dafa bëgg a ixbaar ci moom maanaam nettali ay xabaar ci moom dana jëfandikoo al ubudiya doon gi Muhammad doon ab jaamam nun ñépp ay jaami yàlla lanu waaye ku ci yàlla sette ba teg la loxo ni la yow mi sama jaam nga yàlla sedd na la loolu gis nañ ko ak mu def ko ak rasulullahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam subhaana alladi asra bi abdihi muhammad la ci jublu wa annahu lamma qaama abdullahi muhammad la ci jublu fa awxa ila abdihi ma awxa muhammad la ci jublu araayta alladi yanha abdan muhammad la ci jublu nga gis ni borom bi subhaanahu wa taala séddi na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam cër bu mag ndax nii la doon waxe ak moom digal jaam yépp nag ñu wormaal ko wàcce ko wàccuwaayam teg ko fa mu ko teg ndax daraja ji mu am ak maqaama mi mu am loolu ci wet nga dellusiwaat ci ñeenti yoon yi nga xam ni sunu borom subhanahu wa tudd na ci Muhammad sàllalu ko Muhammad mu leer yoon wu ci nekk ànd na ak rasuul yoon wu mu ko ci wooyee Muhammad rek boo seetloo rasul nga ci wet ga wa ma muhammadun illa rasul ca ali imran ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah ca suratul ahzab walladina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammad foofu da ngay gis ni nit ki soo ko woowee yónni ko muy dem lu tax mu doon sa ndaw sa sa ndaw loo ko wax wala loo ko jox mu di ko yóbbu foofu suñ boroom li mu fa tudd mooy la tax mu doon rasul muy alquran wa amanu bima nuzila ala muhammad nga dem ca suratul fatxi fekk fa muhammadun rasulullah muhammad ndawal yàlla la ba ci yoon wi mu ko sàllaloo tudde ko ahmed sax rasul ñëw na ci wa mubashiran bi rasulin yati min baadi ismuhu ahmed loolu boo jàngatee loolu da dafa mel ne da lay wax ni la dañ ciy dégg ni suñ boroom dan naan sàllalu naa ko naam waaye sama ndawa rasuul fu mu ko tuddee tudd rasul fu mu ko sàllaloo tudd rasul kon sàllalu naa ko de muhammad bi waaye sama ndawa nga dellu siwaat seet ni yoon wu mu ko fi tuddee sàllalu ko ci jihaad cib xare la ko tudd imma waxtu wa imma waxiin wa walla waxtu wa walla bërëb ba xool bi ci njëkk wa ma illa rasul illa rasul ca xareb Uhud la wàcc ma kaana muhammadun aba ahad min rijalikum mi ngi ci sootul ahzab sootul ahzab xare bu metti bu doy waar bi yahut yi ànd ak yéefar yi takkatoo ci juróomeelu atu gàddaay gi ni nañ dem dal ci kawam rek ñoom ñëpp yahut yeeg mushrikun yeeg naafiq yeeg ak waa banu salim banu nadir ñoom ñëpp ni nañ ànd dem dal ci kawam fekku madina rek dal ci kawam wax ñu wax ji jeex ñu def loolu mooy azwatul ahzab xare bu metti la woon ba ñëwee yant bi yëg ko waxtaan ak ay saxaabaam dañoo daal ni kon léegi Salman al Farisi moo joxe xalaat ni nañ gas buntu Madina booba Madina benn bunt rek la wetu féete gànnaar rek moo am duggukaay mu ne nañ ko gas wet gi féete penku am montagne fa nekk bu gudd wet gi féete saw montagne fa nekk bu gudd wet gi féete saalum ab montagne fa nekk ba mu des tuuti waa Banu Xurayza ñoo fa dëkkoon ñu ni kon nañ gas ab xandaq am yeer mu yaatu moo xam ni buñ ko gasee ci bunt bi duñ mën a ñëw ñu gas ko moom moo tax ñu tudde xare boobu xareb xandaq wala xareb ahzab ndax liñ doonoon ay kuréel ci seen biir song ko waaye yàlla mi dara tawul bañ ñëwee wër ko ni ko ginnaaw yaa ko man rek ay si ñun wër ko wër ko lu mat weer ak i fan waaye ba yonent bi jàll jàkkaarloo ak boroomam ñaan ko suñ boroom wàcce fa ngelaw lu baree baree baree bari sàq xayma ya rëgët jur ga gëlëmal leen ba cin yi ñu taaloon sax ngelaw li da ko tuur ñu xëy ñoom ñépp ni dem nañu kenn desu fa mooy xaswatul ahzab bi mu sunu borom di nettali xare boobu ci alquran boobu la tuddaat yonent bi ñaareelu yoon sàllalu ko wa maa muhammadun maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum nga dem ci suratul xitaal fekk ni moom tamit fa la ko tudd suratul xitaal saar yi bañ na ko ba tudd saaru xeex ak tey xeex yu bari ci saar woowu la ko sunu boroom tër saar wu yéeme la moom tamit boo koy jàngat day ngay gis suñ boroom di ciy tëkkale yéefar yi ak jullit yi ci àdduna ak alaaxira jul euh, yi ak jullit yi àdduna ak alaaxira seen melokaan noonu la saar wi tëddee tëkkale tëkkale waaye ci biir saaru woowu tudd sootul xitaal muy saaru xeex ci la sun boroom waxewaat tudd yonant bi ñetteelu yoon muy Muhammad ñeenteelu yoon bi mi ngi ko tudd ci sootul fat ba ñu jógee ca sulxu Xudaybiya di dellu ak sart ya waxoon nañ ko fi sart yu metti ba ñuy dellu saxaaba yépp am lu leen metti lool ba ñuy dellu la ko suñu borom wàccal suratul Fath ni ko am nga ndam inna fatahnaa laka fathan ci la ko tuddewaat ñeenteel bi yoon Muhammad ba ci fi mu ko sàllaloo ci ahmet sax ci mbirum xare la woon mi ngi wàcc ci sootu mi ngi nekk sootu saf fi sootu saf saf mooy rang nii nu def bu ñuy julli mooy saf sufuuf mooy ay ràng dafa am ci alxuraan saar wu tudd saf rang ndax lan suñu baram da cee tudd jamonoy xare bu jullit yi dee xare ba rang ci seen biir dëgër inna allaha yuhibbu alladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus suñu borom bëgg nañ ñi nekk ci toolam bi di xare rang jàppaloo mel ni tabax bu ñuy tegalee ay birigam kole ko dëgër benn aaya la ci teg tegaat yëpp aaya ci la tuddewaat Ahmed ñeenti yoon yooyu yëpp boo ko seetloo dafay mel ni borom bi daf la naan sàllalu naa ko naam waaye mujaahid la jàmbaar la maa ngi koy sàllalu de waaye jàmbaar la ñetteel bi seetlu nga seetluwaat ko ci turam bi Muhammad ak Ahmed bu la neexee sax nga yokk ci Hamid ak Mahmoud ñoom tur yooyu yëpp ñi ngi ko soqee ci seen xarwaay mi ngi jóge ci xamd xaa miim daal mooy firi ak cant ci la alhamdulilahi rabbil alamin jóge ani alhamdulilahi ci la jóge ci cant googu ci la ñu jëlee Ahmed ci la ñu jëlee Muhammad ci la ñu jëlee Hamid ci la ñu jëlee Mahmoud Hamid mooy ku sant donte ke benn yoon cant gu yem xaamid moom la wax Amadou ñun fii Amadou xaamid mooy ku sant Ahmed mooy ku sant lu bare baree baree bari ku dëkk di sant mooy Ahmed afdala taf tafdil la wala ki nga xam ne moo gën a mën a sant santkat yi santkat yëpp santkat ki leen gën a sant mooy Ahmed Mahmoud mooy ku sant mahmoud ku ñu sant sant ku yem muhammad mooy ku ñu sant cant ku baree baree baree bari wala ku ñu bari sant lu bari mooy muhammad nga gis ni kon tur yooyu hamid ahmed mahmoud muhammad yépp ñu ngi jóge ci ak cant mu mel ni kon laata muy nekk aw turam xàmmikaayam tur moom xam nga xàmmikaay rek la moom la wax nom propre wala ismu alam lu ñuy xàmmee dara mooy tur waaye moom ay turam laata muy doon nom propre ci moom dafa doon ay melokaan ci moom ba pare nga xam ni danga ko ci gis ci moom bokkut ak koo gis fii ci mbedd mi rek mu tudd Muhammad waaye melokaan yaag na bu ñu la nee Muhammad nga tudd nga wëcc sa sa bopp ah kii Muhammad la tudd ndax lan melokaan wa bokkut ak àndul ak tur wi waaye moom ay melokaanam dafa ànd ak aw turam Hamid Ahmed Mahmoud yooyu yëpp dañ ko fekk ci moom ba noppi mu soog koo tudd moo tax ngay seetlu sëriñ bi foofu xarala xarala euh, sëñ bi lool fi mu ñu dajalee njariñam yooyu yëpp ci turam yooyu ahmaduna rahmatuna hamiduna ni'matuna mahmuduna farhatuna wal juudu di yami gis nga mu indil la turam yooyu dajale la ko indil la njariñ li foofu mu mel ni rek boroom suñ boroom lim lim ñuy wax foofu rek mooy Muhammad day sàllalu naa ko tuddee ko Muhammad waaye ku ma sant la ku ma gërëm la ndax turam yépp ci cant ak ngërëm laa ko jële loolu ci wet nga dellu siwaat ba tey ci ñeenti yoon yi ko sunu borom subhanahu wa taala tudd sàllalu ko Muhammad mu leer nañ nga seetlu ni yoon wu mu ko fi tudde sàllalu ko Muhammad am na lu mu lijjanti si luñ doon laam-laamee am na walla amul luñ bëgg na saxal te borom bi ni du sax lu borom bi bëggoon mu sax te ñoom ñu ni du sax wala lu ñu bëggoon mu sax te borom bi bëggul mu sax noonu fu mu ko fi tudde rek Muhammad ju ne rek ñëw na lijjanti si lu mel noonu bi ci njëkk mooy ba ca suratul ba ci suratu Ali Imran wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutil inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzillahu shakirin dañoo siiwal ci xareb Uhud ni inna muhammadan qutil rey nañu muhammad rey nañu muhammad rey nañu muhammad mu doon xare bu tàng jullit yi jaxasoo yéefar yi ah jaajuwaat am ci naafeq ñu ne accam kii bu doonu yonent des na ko rey am ñu ni ginnaaw rey nañ ko kay jaratul ñun ñuy xeexati nañ bàyyi xeex bi am ñu ni déedéet taxaw leen ngeen xeex ba am ndam wala ñu def leen ni ñu ko def moo tax suñ boroom ñëw ni wasa yajzillahu shakirin gis nga ñi nga xam ne ñoo saxoon keroog ni dañuy xare suñu boroom ne danaa leen fay waaye foofu maqaamu sabr la bu doon waxi doomu aadama kon danaa fay muñkat yi ndax ñoo ñooñu dañ doon muñ waaye muñ ga dafa dem ba ca daraja ja ca mujj mooy arrida ak shukru ñooñu foofu lañ toll woon moo tax suñu boroom tëjee aay bi wa sayajzi llahu shakirin ñi nekk ca ja ju mujj ja ci muñ bu ëllëgee danaa leen fay daal di leeral nag ni wa ma muhammadun illa rasul muhammad mii ndaw la ci ndaw yi ma daan yónni yonent yi ma daan yónni kenn la ci ñoom wax su defoon ni ñooña def àppam jot mu dem faatu wala ñu rey ko wala ñu rey ko day tax ngeen nekk ci xare bi di daw déedéet warta tax ngeen nekk ci xare bi di daw allahu siiwal siiwal ni Muhammad rey nañ ko rek ci xare bi warta tax kenn di daw siiwal ni Muhammad rey nañ ko ci xare bi warta tax kenn di tubbi di génn ci xeex ci lislaam bi afa in maata aw xutil day tax inqalabtum ala anqabikum day tax ngeen génn ci diine ji wa man yanqalib ala aqibayhi ku daw wa man yanqalib ala aqibayhi ku tubbi falan yadur allaha shay'an du wàññi yàlla dara loolu la aaya bi si ndax dañoo wax ni muhammad inna muhammadan qutil suñ boroom ni leen muhammad buñ ko rayee nag nga dégg ci waxin wi nii bu ñu ko reyee ji nag kon moo lay wax ni kon Mouhamed kenn reyu ko lool la leeral si Mouhamed mi ngeen naan rey nañ ko ci xare bi kenn reyu ko lu tax it ñu tudd Mouhamed yi ñu sàllal ko mooy ñoom ñoo ko wax ñoo ni inna Mouhamadan qutil aaya bi ñëw ni Mouhamed reyuñu ko jaaraat fañ jaaroon daal di koy leeral si wane ni Mouhamed kenn reyu loolu la aaya boobu leeral si ñetteel bi mi ngi sootul ahzab wala ñaareel ñaareel yoon bi mi ngi ci sootul ahzaab maa kaana muhammadun aba ahad min rijaalikum walakin rasulallah dafa am xale bu ñu jàppoon fa yaman am na ñu wax yaman yóbbu ko màkka jaay ko fa jaay ko ku ñu wax hakim ibn hizam mu jënd ko may ko bàjjanam soxna sayyidatna khadija mu may ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad bëgg xale bi lool xale bi bëgg ko mu yar ko di ko jàngal di ànd ak moom fu mu jëm ànd ak moom xale bi baayam wër na ko fu ne jooy ko ba sonn bakaytu ala zaydin walam adri ma faal axayun fa yurja am ata duunahul ajal fa wallahi ma adri wa in wa in kuntu saa'ila xaalaka sahlul ardi am xaalakal jabal jooy naa zeyd xaw ma nu mu def xale bi zeyd la tudd dooma jooy naa ko xaw ma nu mu def xaw ma mi ngi dund nuy am yaakaar xaw ma appam jot na xaw ma suuf si mëdd na ko xawma xeer yi alag na ko teg ci xayaati aw tati alayya man yati wa kullu mri'in faanin wa in garrahu l amal sa uusi bihi qaysan wa amran kilayhu kilayhima wa uusi yazidan summa min baadihi jabal su ma dee dund dinaa ko wari su ma faatoo danaa ko dénk qays amr Yazid jabal ay doomi baayam lañu ñu dem seetali ma ko jooy yu metti woy yu neex la doon wëre doomam jar na ko nag ndax doomam jooju ma doon wër mooy benn saxaaba ci saxaaba yonent yi ni ñu bëree ak ni ñu baaxe mennum moom la ci alxuraan tudd turam kooku jar naa wëri fa lamma qada zaydun minha watara rek ndekete xale baa nga ci rasulullahi sallallahu alayhi ba mu dégg ni moom ma nga màkka mu dem takk dem jëli ko ba mu demee ni yonent bi suñu doom moom lañ doon jot si mun ko kan mun ko zayd mun ko bismillah dañu koy woo laaj ko tànn loo ko su fekkee tànn na leen ànd ak yéen laajuma leen ci dara su fekkee tànn na ma nag ah man nag ku ma tànn ma tànn la man kenn du ma tànn may tànn leneen bàyyi bi ni ko xet jitte na nis yaakaar yi amoon ci yow ba tax nu ñëw kawe nga njot njot li kawe na ko ndax booba jàpp na ni xale bi bu dikkee buñ ko tànnaloo rek mu ànd ak ay bokkam dem mu ñëw ñun ko xam nga kii mu ni waaw sama baay sama baay tax dañoo ñëwoon di la jot si boo bëggee ànd ak ñoom nga dem boo bëggee toog nga toog xale bi ne leen ma alladi ma ana billadi axtaaru ala muhammadin ahad man du man maay kan tànn ci kaw muhammad kenn baay bi ni ko way xag jol alku nga loola dal ana lu nit di tànne nekk ab jaam ci ay jàmbur ci nekk as ànd ak say bokk dem mu ne ko kii gis naa ci moom ay melokaan ak jikko yoo xam ne gisuma ko ci kenn moo ma gënal bàyyi moo ma gënal bàyyi tax keroog yonent bi dafa bég ci li ko xale bi wax ba ànd ak moom dem ca pénc ma ca kaaba ga ni mbokk yépp yéen ñëpp maa ngi leen di seedaloo ni Zeydi mii bis ni tey sama dooma su ma ko njëkkee faatu damay doon su ma njëkkee faatu dama koy doon loolu dafa xewoon jamono jooju booba yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn yónneegu ko loolu la wax at ba nii mooy adopté wala adoption jël doom doomoo doomi jàmbur booba xew na am na waaye lu yàlla bëgg a defar la yoon defar moo tax mu jaaree ko ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi yonent bi waxee loolu bàyyi bi dafa bég ci li yonent bi wax ba dem bàyyi ko feek moom yonent bi yar zeyd ba zeyd màgg yàlla yónni ko mu gëm ko mu ànd ak moom gàddaay dem Medina am na doomi bàjjanam ñu ñuy wax zeynab bintu jahsh yàlla xamal ko ni ko zeynab bintu jahsh mi jox ko zeyd mu nekk boroom këram mbir mi amoon na ay nangoog bañ a nangu ndax Zeynab xam na boppam xam na ni fi Zeyd di dikkee waaye yàlla dugal kàddoom bu yàlla dogalee amul kenn nag kuy gàntu ñu nangu waaye sëy bi neexul sëy bi neexul bis bu ne Zeyd di dem ci Muhammad di ko jàmbat li ma soxna si di wax li ma soxna si di def mu naan ko muñal jàppal rek jàppal sa soxna te muñ ba bis rek Zeyd bàyyi ko fase ko suñ borom sal daal di xamal Muhammad ni ko Zeynab bint Jax sa doomi bàjjen jooju Zeyd di yoroon may naa la ko jël naa ko jël yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël Zeynab bint Jax mu nekk soxnaam dëkk bi yëpp nag di mbamb loolu Muhammad jël na soxnas doomam ndax ba mu ko tabani ba mu ko defee doomam rek ñëpp dañu doon wax Zeyd ibn Muhammad Zeyd doomi Muhammad Zeyd doomi Muhammad loolu lañ ko xamee fa Màkka ba ba mu demee Madina loolu la ñuy wax Zeyd doomi Muhammad Zeyd doomi Muhammad ñëpp xam ko ci loolu ba Zeyd xëy bàyyi soxna si yàlla ni Muhammad jëlal soxna si dëkk bi ni nag Muhammad jël na soxna si doomam kenn mus koo dégg lii kenn mus fi am lii mosu fi am coow li ni bay ñuy wax loolu ñuy jàmbat loolu suñ boroom wàcce aaya bi wa ma muhammadun eh, suñ borom wàcce ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum ma kaana muhammadun aba ahadin min nga seen góor ñi seen doom yi mu kallaf fii ngeen yor nii muhammad juru ci kenn na ci zayd mu leer nañ dañ doon wax zayd doomi muhammad aaya bi wàcc ne muhammad du bàyyu zayd loolu la aaya bi doon lijjanti si ni ñu doon tuddee Muhammad ji mu leer aaya bi dikk tudd Muhammad ji mu leer loolu benn Muhammad du bàyyi Zayd ca la ñu tàmbalee dindi li ñuy wax adoption jël doomi jàmbur doomoo ko lislaam bëgg ko xam nga lu mu ciy bañ àq yi nga xam ni moom la ñi waroon a am su fekkee ni keneen ñëw na fi doon doom taxaw taxawaayu doom dëggantaan ni ñu jàppee doom ju ñu jur ñu jàppee ko doom yi ñuy adopté xañ nga ay cër yu yàlla tudd ni ñii ñoo ko war a yor xañ nga ko seen borom te suñ borom loolu li jëddi moo tax ba mu demee dafa wax ne ud'uhum li abaihim tu ku ne nañ ko delloo ca baayam bu ngeen xamul baayam ngeen woowee ko sama mbokk waaye wax gi ngeen koy wax naan diw doomi diw diw doomi diw dalika xawlu dalikum xawlukum bi afwahikum loolu si seeni wax la rek yéen a koy wax waaye wallahu yaqulul xaq yàlla moom dëgg lay wax wuute nag nag kafaala wuute nag iwa yor ab jirim walla yor doom bokkuñu mën ngaa yor ku la neex mën ngaa dimbali koo bëgg ci sa alal ci sa am am sa man man sa kattan ci looman waaye rek bu mu la araam bu ko jàppe ni doom joojur na ko leer rek ndax yonent baa ngi wax ni ana wa kaafilul yatimu fil kaati wa kaafilul yatimi fil jannati ka haatayni def ni ñaari baaraamam man ak képp koo xam ne fat nga ab jirim maag yow nii ci ajjana ñaata doomu aadama ñoo fi nekk ñu mën a yor ay jirim ajjanaa ngi nii teew ci seen kanam moo xam nga yor ko indi ko sa kër yor ko wala nga yoral ko la nga koy yore rek bu ëllëgee yàgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci àjjana nii am na solo loolu loolu la aaya bi doon lijjanti di atta banni maanaam loolu lu kii bu yaatu la yaatu la ndax am na nu koy defee nu ñu koy defee loolu beneen affaire la loolu beneen affaire la waaye mu dellu si leeralaat ni dañ doon wax naan ndax Muhammad mii li muy woote ak nguur la wala risaale la mu leen ah suñ borom addu ni ah kay walakin rasulallah maa ko yónni sama ndawa waaw Muhammad mi mooy xaatamul anbiya wala yàlla dina yónniwaat keneen gannaawam mu ne wa xaataman nabiyin ñi ma doon yónni moo ci mujj am na ñuy jàng wax am ñuy jàng wax xaatam mooy kase bu ñuy dóor ci këyit kilifa gu bind ab leetaram ba noppi dóor ci tampom jeex na loo ci bindati wala loo ci farati fals la loolu benn wala ñi ma doon yónni ñuy ñëw moom mii moo ci mujj yónneetuma keneen loolu mbir mu saf xorom la ci ci jamono ci taarixul islaam waxtu wu ne nit taxaw ni man ab yonent laa yàlla ma yónni man lii man lii man lii di woote ci ba ci jamono yonent bi am na musaylamatul kazzab dégg ngeen ko ba nëgë ni nit ñi di woote naa ay yonent waaye suñ borom li wax mooy Muhammad moo tëj euh, euh, nubuwa gi moo tëj risaala gi loolu loolu ci li aaya boobu leeral si ñetteelu aaya bi moom bi mu ne walladina amanu wa amilu saalihaati yahud yi dañu ne ñun gëm nañu eh, ah, gëm nañu Ibrahim gëm nañu Muusa gëm nañu yonent yi fi yàlla yónni woon te noo ngi jëf lu baax déedéet mu ne leen wa amanu bi ma nuzila ala muhammad charte la ngëm ngir mu wér fokk nga gëm li ma wàcc ci muhammad muy alquran ji ak muhammad moom ci boppam charte la ci aaya boobu loolu la la si ñetteelu aaya ñeenteelu aaya bi li mu leeral si mooy muhammadun rasulullah aaya bi ko jiitu aaya bi jiitu muhammad rasulullah laqad sadaqallahu rasulahu suñ borom day wax ni yàlla dëggal na gé laqad sadaqallahu rasulahu ruya bil haq yàlla dëggal na géntu yonentam ba mu mel ni dafa am ku laaj ni yonentam ban aaya bi ñëw ni muhammadun rasulullah ñaareelu aaya bi tamit huwa alladi arsala rasulahu bil huda yàlla moo yónni yonentam ba ci njub ak ni mu mel ni dangay laaj yonentam ban la yàlla yónni yàlla yonentam mi mu ne muhammadun rasulullah beneen firnde bi ci des mooy aaya bi dafa ñëw di leeral si ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni gis nga ku bëgg a dugg ci lislaam bi boo ñëwee fii la la imaam di dalal wax loolu la shahaadataani ashhadu an laa ilaha illallah nga seede ko waaw bu ko defee yàlla jéggal na ko bàkkaaram yi amoon yépp loolu kii soog a dugg waaye yow mi nga xam ni ci nga juddu ci lislaam bi nga juddu fekk say waajur nekk ay jullit boroom xam-xam yépp maase nañ ci ni képp ku gane àdduna fekk say waajur di ay jullit ab jullit nga yàllante ñu nàmpatal la ca yar la ca jàngal la ko ba bu ëllëgee doo wax walla nga def lu lay weddi lu weddi sa juddu boobee loolu suñ boroom seede na ko bu yàgg moom seedeel na ko boppam lim lay seedeloo shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wa mu wa anna muhammad rasulullah ji nag aay bii ñu yor muhammad rasulullah ci liy seede ni yàlla seede na ni moo yónni muhammad ci la bokk huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diin alxaq li yuzhirahu ala diine kulli wa kafa billahi shahidan muhammadun rasulullah daal di tudd ni man maa yónnee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy sama ndaw bi ci des mooy ba nga xamee ni def nañ sulxul xudaybiya te Suhaylu lànk ni kenn du fi bind Muhammadu Rasulullaay dañ koy far ba bi far ko di dellu Madina laata muy egg yàlla wàcce aaya bi ne ko Muhammadu rasul rasulullahi ji ñu faroon fee ca saxiifa fañ doon bind ni kenn du ko fi bind tey bindal naa leen ko foo xam ne kenn dootu ko far bind naa ko ci alxuraan bind naa ko ci bopp jigéen ñi bind ko ci dënni góor ñi bind ko ci làmmiñu xale yi ñëppay wax muhammadu rasulullah kenn dootu ko far ba ci suñ jumaa ji fale ci buntu sowu baye boo demee yaa ngi gis ca kaw ñu bind fa muhammadun rasulullah walladina maahu ashidda alal kuffar ila yawmi diin kenn dootu ko far suñ borom leeral ni kon muhammadu rasulullah yii ma wax li tax ma wax ko mooy bu ci nekk am na lu mu doon leeral si nga gis ni kon lan lu nu war ci muhammad ci boppam tur woowu di ko tudde sunu doom yi di ko tudde sunu doom yi di leen jàngal melokaanu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu roy ko wala comme fii rasulullah uswatun xasana ba tax na dafay mel ni muhammadum saar wu ne dafa ñëw leeral si ak i mbiram yoo xam ni muhammad ma ca des leeral si wu ko nga ngir nga xam ne benn Muhammad du ci répétition amul ci benn buñ ci baamu takraar amu ci bu ci ne am na loolu lijjanti ci ba tax ne kon Muhammad mu ne ak ay mbiram ba bu la neexee yaakaar naa ni nga roy lu baax Muhammad mu ne nga wutal ko aw turandoo Muhammad al Mustafa Muhammad al Fadil Muhammad al Amin Muhammad al Bachir lu mën a nekk la boo ko ree day rafet ba dee muhammadu rasulullahi kon sunu borom subhanahu wa taala moo nu jàngal ay mbiram wax nu ni nu ko war a roye aaya bi nag niñ koy jàngatee mu neex borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari lu am solo xaw ma waxtu bi dina ko may wala waxtu bi duñ ko may waaye ñu jéem bala nooy egsi ci li nga xam ni mooy soññee bi nga xam ni lu jaadu la ci jumaa ji mbooloo mu toll nii teew ñu war a góor góorlu bu baax bu baax bu baax ci yokk seen pas-pas ak seen farlu ci liggéey jumaa ji ndax ñun dong jullit yi dong ñoo ko fi def te ñoo ngi fi te liggéey bi des na gis nga jumaa yi rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam ba mu koy tabax ca Madina ma nga woon ca digg ba moom Muhammad di xànc ci xëddéen yi di gor xëddéen yi ñu ànd ñoom di tabax di bàkk seen bopp di kañ seen bopp laa aysa illaa aysul aaxira allahuma axfir al ansaara wal muhaajira di ko kañoo ngir lan ngir mën a liggéey kon mën nanoo noo kañu mën na noo jaajowaat nekkaat ci liggéey bi ku ne na ci def ci loo man sa kamtalay kàttan yokk loo doon def nga def ko ndax xam nga ni ab liggéey liggéey yàlla du jeex jihaad la fi sabilillah def leen ci lu nan ci def lu nu man def ci lu nu am ngir jumaa ji taxaw na noo ko moom yal na yàlla loolu tawfiix loolu ñu sutura loolu ñuy tawfiix bu baax a baax a baax boroom xam-xam yi dañoo wax ni muhammadun rasulullah bu la neexee nga jàng ko nii boo nee muhammadun rasulullah muhammad yàllaa ko yónni walladina amanu maahu ashiddaau alal kuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuna fadlan min allahi wa ridwanan siimaahum fi wujuhim min asari sujudi dalika foofa ngay taxaw boo taxawee ci zaalika ji day wax ni muhammad ak ñi mu àndaloon ci yoonu yàlla wii ñu tar lañu ci yéefar yi ñu yërëmante lañu ci seen biir foo leen gis ñi ngi rukkoo ak a sujjóot di yaakaar ngërëmal yàlla ak ay xéewalam ak ridaam seeni màndarga ci seen jëy yi nga koy gis muy leer guy jolli ëllëg yowmal xiyaam ndax lan ndax sujjóot yooyee ñu doon sujjóot bu boobaa misaal loolu misaal la moo xamante ni ci alxuraan nga koy fekk nga yeggale masaluhum fi tawraati wa masaluhum fil injili ka zarin axraja ba aaya bi jeex loolu misaal la moo xam ni dala naan seen ñaareelu misaal mi boo demee ca tawraat boo demee ca linjil da ko fa fekk muy wax ni dañuy mel ni gàncax néew doole lool waaye bu ñu jógee dañuy am doole gàncax gu toj car yi génn mu màgg dëgër ba ne ca kaw yéem ñëpp boo taxawee ci zalik nan wala nga ñëw ñu ni borom xam-xam yi ñëwaat ni la bu la neexee nga jàngee ko nii boo ne muhammadun rasulullah walazina maahu ashidda alal kuffar yaa ngay taxaw ca dalika masaluhum fi tawraati wa masaluhum fil injil nga taxaw bu boobaa day nekk ni misaal mu njëkk mi mu nga ca tawraat ma nga ca linjil nga yeggale ka zarin axraja sat'ahu boo yeggalee mooy nekk ni kon ñaareelu misaal mi ngi ci alquran wala nga tàmbalee ko ci kaw ba mu jeex nga soog a taxaw day nekk ni ñaari misaal yëpp ma nga ca tawraat ma nga ca linjiil mi ngi ci alquran wala nga taxaw ci dalika masalahum fi tawraa boo taxaw ci tawraa mooy misaal mu njëkk mi tawraat moo ko wax nga eggale woo masalahum fil injil ñaareelu misaal mi linjil moo ko wax ñeenti ay mbir la yoo xamante ni borom xam-xam yi ñoo ci jàngat lu am solo yoo xamante ni buñ la ci wax rek nga ni moom la de boobu de jub na am ñu ni ka zarin Muhammad axraja shatahu abu bakar fa azarahu omar fastaxlasa usman fastawa ala suuqihi ali ibn abi talib yal na yàlla boole defal tawfiq defal ñu jàmm defal ñu sutura nu fekkee weeru koor ci jàmm woor ko ci jàmm suñu borom subhanahu wa taala nangu ko te nu fekk ko ay ati ati ati at mu ful ko bunt ba muy wax ni ku ñi daan woor rek ñoo fay dugg yal nañ fa borom bi subhanahu wa taala dugal wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallim